am na kuy ñëw na ngeen ko xàmmee ndax nee na xàmme ko mooy seen njëriñ mu wax leen ca ardul xussi yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min altawrat wa mubashiran bi rasuli yaati min badiya ismuhu ahmad muni kon na ngeen ko xàmme amna kuy ñëw mi ngi tuddu ahmad sayyidi ahmad ndax moy turu asamaana muni na ngeen ko xàmme waye itam ni ko yàlla di waxe rek fa lama jaahum bil bayna khalu haja sehrul mubin waaw yàlla nee na teewul ñëw na wan len mom yonent bi di Ahmad waaye dañu mujj rek ni lii mu wane lépp daal ay xërëm la waaw haja la magie évidente waaw loolu la ñu wax te Isa ibnu Mariam avertiroon na leen kooku lañuy ñaan yàlla dinu tëbb ci leeram su ko defee nuy yeesal sunu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 danay jëriñ borom xol bu am ngëm waaw waaye suñu ñëwee ci cadre la noo tuddee la pouvoir temporel li ci yàlla war a wax yépp moom mi ñu bind wax la ko ba noppi mi ngi ci alxuraan bu ñu ñëwee ci cadre ba ñoo tuddee le pouvoir spirituel li ci borom bi di décider yépp décider na ko ndax mi ngi ci alxuraan dafa am baat bu am solo boo xam ni di ko bàyyi xel dafay doon farat waaw muy xulillahumma malikal mulki waaw tuati mulka man tashaau wa tanziu mulka mimman tashaau waaw wa tuizzu man tashaau wa tudillu man tashaau bi yadika alxayru innaka ala kulli cheyin qadir waaw moo ëmb pouvoir temporel waaw gis nga li ëmb pouvoir spirituel mooy li mu indi synthèse am synthèse la indi تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتحرج الحي من الميت وتحرج الميت من الحي وترزق من تشاء بخير حساب بوك ديكون دنا لا دوي ياك yàgg لي ام سولو te jiitu ci baat bi borom bi wax mooy baatu xulillahumma maalikal mulki mulki gis nga secret bi nit di wutee nguuru àdduna yépp foofu la yam waaw xulillahumma mulki waaw maalikal mulki c'est le possesseur du royaume moo tax kooku mënul doon benn revendication bu dul bu borom bi waaw Malik al Mulki le possesseur du royaume loolu day wane ni lépp loo xam ni day dellu si nguur waxuma nguur gi ci boppam mais moomeelu nguur gi borom bi mooy caabi bi waaw le possesseur du royaume Malik Mulki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 yore seen ay carte ñu ni voteel nañ waaye gis nga vote boobu balaa muy am fekk na dogalu yàlla jiitu na ci na dogalu yàlla jiitu na ci looloo tax mu ni qulillahumma malikal mulki tuuti mulka man tasha waaw kay gañe keroog ba ñu wax ni kii moo gañe élection yi yàllaa ko jox nguur ga ndax mooy malikal mulki tuuti mulka man tasha waaye mu dellu wax ni wa tanziu mulka mimman tasha waaw gis nga bu élection ya amee mu ni ki dem defe ni dafay gañee walla daf fiy des résultat yi génn mu perte nu ni wàcc na nguuram jeex na yàlla nee man maay foqati nguur ci loxo ku ma neex wa tanziu mulka mimman tasha waaw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 puissance su alal am puissance influence am na puissance physique am na puissance spirituelle am na puissance mystique am na waaye nee na ku ma neex ma tànn benn ci puissance yooyu jox la wa tu'azzu man tasha waaw waaye mu ne it wa tuzillu man tasha ku ma neex ma xëy humilier la waaw nga nekkoon ci kaw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 mu dellu nag ni yéen ñiy demandé loolu yëpp ci ban xaal la bi yadikal xayr nee na sama loxo daal ko téye moo tax ñu ni bi yadikal xayr bu la jaaxalee da dellu ci beneen baat bi mu waxat moom yàlla yàlla te mooy tabaaraka lëlli bi yadihil mulk wa huwa ko kulli shay'in qadir waaw bu la jaaxalee da ngay dellu ci beneen baat bi mu waxaat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 te bu xas ba ngëm kenn du ko rocc ci moom waaw waaw te bu ngëmbee bu tàllalul loxoom joxe kenn du mën a sësit moo tax mu ni bi yadikal xayru innaka ala kulli shay'in qadir fële mu ni tabaraka alladi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir waaw waaw nguur gi mu ngëb ci loxoom moom yàlla te bu ko tàllalul kenn mënul bépp loxoom ba génne la ca nene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 وتنزئ ملكا لمن تشاء وتعز من تشاء وتزل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء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 la ñuy jàng fa lan koy jànge la ñuy branché ñu koy branché la ñuy débranché ñu di ko te kenn du ko yëg waaw parce que dundul wax ak nit seen borom la ñuy waxal waaw te ñoom li nu njëkk nangu li nu njëkk nangu ba loolu dëggal seen tawxiid mooy ni seen borom mooy maalikal mulki le possesseur du royaume kon luy jógee ci wàllu nguur rek ci loxoom lay jóge rawatina nag borom bi wutal leen lay wax wax bopp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 mu bëtt ko dugal ci bruit gis le coucher du soleil jant bi saw ngay xoole di xoole gis ñu ni guddi na waaw te nee na déggoo fu pour xëjal guddi déggoo nga toog ba gis gis ko waaw le crépuscule la venue de la nuit l'obscurité nga talal lamp yi ñi ngi ci guddi processus bi xew na yang koy gis way yego processus bi lu ko doon dugal buri bu muy andal wala dal lu muy àndal waaw tuliju layla lay la fi ndar muni de même que processus boobu lay répété wa ndax wa tu li jul nahar fi lay lay neena damay toggaat ba guddi ga dem ba guddi wax sa set guddi gu dem dem waaw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 ñi ko doon demandé ndax dañ ci doon xalaat ni guddi di ñëwee ni bëccëg ci euh, dem jékki sa bëccëg bàyyiwaat place bi guddi dellu ñuy xool ci diggante jant beeg weer ban ban ci moo ci réagir ci ñaar yooyu mu ni la chamsi yan baqi laha an tudrika al wala laylu saabiqu nahaar wa kullun fi falakin yasbahun waaw nee na ñoom ñaar ñëpp kenn ku ca ne da ngay évoluer selon le calcul minutieux mais kan moo nekk ginnaaw di calculer c'est le mooy borom bi moo nekk ci ginnaaw di calculer nee na jant bi ak weer bi yëpp ku ci ne da ngay évoluer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 ñu ni nit ki génn na àdduna ñu ni nit ki dee na suul nañ ko mu indi ay malaayika delloowaat ko roxam dëkkal ko ci biir bàmmeelam loolu rek doy na euh, euh, pour wàllu kéemaan waaw loolu rek doy na pour boobu borom bi def bi doomu aadama bi juddoo doogul kenn xamul góor lay nekk kenn xamul jigéen leen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 jàpp ni denc nañ ko ci suuf su jeex na yàlla jëlaat rox ba delloo ko dekkilaat ko dekkil ko ci bàmmeelam dekkil ko yowmal a waaw ñëpp jàkkaarloo moom te waxoon nañ génn na àdduna waaw ñëpp jàkkaarloo moom te waxoon nañ ne génn na àdduna kon loolu doy na pour xam ci borom bi doy na pour comprendre réalité doy na pour comprendre réalité moo tax bu waxee wa tarzuqu man tasha bi xëy na hisaab su ko neexee nee mooy xëy rek fekk benn nit ku amul dara yàlla xëy def nga milliardaire jox ko sëkk waaw def ko milliardaire fekk amul woon dara te wóoroon na ko ni mënul mënul woon foofu ni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 moo tax mag ñi toll woon foo xam ne da ngay dégg ñu ni eh, nangam eh, danaa fexe ba doo leen ci jot wala ñu xañ leen ko ñu réew la xanaa fekk mu neex yàlla parce que xam nañ ni loo ko tànte tànte base bi tax ñoom duñ ci mën a jot base bi dëgg ci loxo yàlla yàlla ne loolu mooy pouvoir temporaire rek la rek gis nga responsabilité bi ci ne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 pour dimbali wala pour def wala da nga koy utiliser pour yàlla waaw mais dina la jox jox doole amul ku yàlla di dénk nguur te jox jox doole waaw dafay xool nag pouvoir boobu ci nan nga koy utiliser la lay arrêté su ko defee looloo tax mag ñi ci seen dégg ma mag ñi ci seen dégg ma dañ daan wax ni dañ daan wax wax ni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 jóge ci moom soo koy dugg ci ñooñu waaw mu connecté diggante xayba ak shahada connexion a xayba sax mooy gën a fort que bu shahada waaw parce que lu ci ne processus la que te gis nga seen dimension mystique deve dimension mystique dafa élevé ba comprendre dangay ngay dem ba nga ni ñun ni ñuy dundee est-ce que ñoom sax seen réalité la la leen ci nettali rek lu gàtt xam nga bëgg démb ci alxames bi mu coïncide ak neuvième jour ci chahru dañu dem diwaanul xiraa mooy séance boo xam ni trois cent treize prophètes yépp dañ fay teew ñu ci guddi bi 313 prophètes yi dugg ñuy nuyoo kenn par kenn di nuyu nit yàlla yaa ngi ñuy nuyoo di nuyu Isaa ibnu Maryam dugg si nuyoo waaye toogul mu taxaw mi ngeen fa foofu am na fa place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 yonent bi mu ñëwee dafa ni dossier diwaanul xiraa yi yi passé jeexagul mu ni jeexagul dañ koy prolonger maa ngi koy wax ñoom Xalifa Umar démb ci Medina Cheikh dañ koy prolonger ba dossier ren yi balaay débuté premier décembre bi di ñëw dañ koy prolonger ba fin novembre loolu gëj na am diwaanul xiraa depuis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 yu mu ci fan yii benn bi istixfaar la benn bi laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullah waaw cheikh ni istixfaar bi bàkkaar yi bare na suuf di dem bay jéggalu moom yàlla ci bàkkaar yi ñuy def ci kaw waaw yi bare ci kaw suuf cheikh nee na moom la suuf dem xam nga nit a ci waroon tiit ndax nit a koy def ak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 mu ni ak laa ilaha illallahu muhammadu rasulullah parce que xam na moom suuf ni su bàkkee yàlla bu ci tuddee soppeem bi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana ko moom waaw suuf lay wax de waxul waxi roox doomu aadama wala waxi dinde wala waxi keneen mu indi ñoom ñu indi seen prolongation dossier waaw te man xam naa lu tax suuf ñaan loolu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 ñi ci des ñëpp koo ci wax bu yore pouvoir spirituel boo ko waxee lu jëm ci pouvoir temporel daf lay wax ni jaru ko parce que lu la du ci sori nga ni lu tax mu ni boo ci bëggee xuusi du sotti ndax ñaar ya mënuñu ànd loolu lay wax c'est tout à fait normal ah tout à fait normal mais l'homme de la fin des temps le missionnaire de la fin de temps moom dong moo ëmb le temporel et le spirituel waaw ah. ñaar ya ah. parce que lu tax yàlla waxu ko rek kaay wax waaw dafa am yëmu war tax te gis nga contexte boobu soo ci bàyyee xel soo ci bàyyee xel daf lay delloo ci dëgg-dëgg sans pouvoir spirituel tey ñu bëri dañ koy revendiquer ci réew waaw sax duñ ko waaye sa taalibe moo la koy revendiquer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 moy dafa dem ba aafaariti aafaariti bëgg ka nangu ci mystique yi aafaariti dañoo dem ba bëgg ka nangu ñom ci mystique yi gàggat boo ko boo xamee boo xamee réalité bobu ree la lay def ndax lu mystique yi war utiliser di defar ay rox dem ba aafaariti ñom xey bëgg nangu lolu pour yàq ay rox kooku problème am na kooku problème am na waaye xam nga lu indi problème boobu yooyu mooy ñoom affaire yi dañoo dem dem dem ba naa ko waaw bi ñuy dugg ci réew mi maa ngi leen di annoncé dañoo dugg ci réew mi bi yàq di tooñ di euh, créer accident di def lu leen neex ba mujj naa ko waaw ñu dem ba ni comme Sénégal ay mystique ña fa waaw te ñun am nañu pouvoir bu tolloo ñu mën leen infiltrer ci seen biir bu ñuy nelaw.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 ñoom ñu dem ba décider ñoom affaire yi ni dañuy changer donne bi léegi jëlee ci mystique yi réalité boobu euh, dugal ko ci seen wàllu ñoom pour yàq doy keroog ba ñu demee xadaratu la ñu ni jóg jot na waaw la na bi ñuy wax jóg jot na ñu bare ni di nelaw boobu ñu ni parce que boobu suñu leen bàyyi woon système boobu kenn dootu leen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 ca la ñuy ba dugal fa seen chef mu siège xam nga luñ doon bañ malaayika fekk ka fa bi nu yàlla yi ne lu luñ ci jublu ma ni a fekk ka fa lañ doon bañ parce que malaayika bu ko fay fekk dafay jaar ci voie bi nga xam ni mooy voie d'ascension normale bi bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te voie d'ascension normale boobu ku ko xam boo demee ba dugg ci barul xayb ba bëgg bëtt lumière salatul fatiha fa la sa leer di jeexe ndax zikkar ba la yóbbaale waaw ca bahrul xay bu am na malaayika yu ko doon romb ca ñeenteelu asamaan seen lumière fa la des waaw Cheikh Abdul Xadir bu daan bàkk bu njëkk ba ca xaalam loolu la daan dafa daan wax am na fu malaaka see lumière ma xuus ko ci yaa allahu dem waaw ndax nitu yàlla la àggoon na foofu li mu doon bañ mooy malaayika fekk leen foofu moo tax ñoom ñu lool woon ca gannaaw siège waaw seen fa la toog xam ni kenn du yebal malaayika mu jënd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 ñu ñëw négocier ni léegi li fi ne daal mooy nanu bàyyi sunu chef nu génn seen réew Sénégal waaw ñu ni wa defoon nañ ko 2011 2011 waaw 2011 defoon nañ ka ak ñoom ñu dem dugg ca Mali yàggul nu retourné waat fii bi gaa ñu waxtaanee ca xadara ba ñëw ne ah lu ci pexe nee na suñu leen bàyyi nu génn sunu réew ci nitu yàlla yi dem foofu jóge fii ci Sénégal la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 boobu léegi bés bu nekk rek ñu daw seeti ñëw ma ne ah fa lu jëm ma ni leen dox amu fa de waaw waaw tax démb bi may bi ñu toogee di waxtaan yàggul tuuti rek gaa ngi naan ah ni def conférence bi suba Dakar a ngay tàkk ma ni leen piège la gis nga affaire yi dana defe ni bu nu taalee Dakar day tax suba du fa dem sama yàpp moo tax ndax yàpp daf leen di lakk ma ni leen même buñ ko taalee dinaa fi ñëw waaw wax ko xalifa Umar mi waaw wax ko xalifa Umar mi ni ko piège la dañu defe ni dama naan leen ma ni kenn du yebbi lay jàkkal waaw waaw pour wax la affaire yi ñi leen xamul rek ñoo leen xamul mais li ni yàq ci réew mi Sénégal kenn xamul nu mu toll parce que nit ñi seen bopp la ñoo utiliser di def ci ñoom lu ñu bëgg def te pouvoir mystique la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

kon yàlla ñu ko yàlla boole waaw yàlla ñu ko yàlla boole ndax loolooy barke waaw yàlla ñu ko yàlla sét yàlla yàlla defit mu doon suñu njëriñ waaw ndax réew mi ni ma koy waxee suñu réew su baaxee suñu réew bu yàqoo suñu réew kon na ni ñaan mu baax te ñaan jàmm rek di fi am tabaarakallah waaw waaye ñaan itam sortie de crise bii buntu boobu mu nekk buntu boo xam ni buntu njëriñ lay doon ci Sénégal yi yëpp rawatina ci umma islamique bi yëpp tabaarakallah yal na ko yàlla mottali waaw yal na ko yàlla mottali ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yal na ko yàlla mottali ci barke Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif waaw yal na fi yàlla delloo si jàmm waaw yal na fi yàlla delloo si jàmm waaw yal na fi yàlla saxal jàmm waaw ndax jàmm rek la lépp xëy waaw jàmm rek ci la lépp xëy waaw moo tax ñu ñaan yàlla ko fi yàlla delloo si waaw ndax loolooy li am solo waaw loolu mooy li am solo waaye li ma leen wax daal na ngeen ko jàpp gis nga xeex bi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 kenn ku ca nekk taxawaay waaw yàlla na ko yàlla fay yéeneem waaw na ko yàlla fay yéeneem tabarakallahu jiital ci président moom itam waxal na waa daayira bi yëpp waaw alxalifa Umar moom itam tabarakallahu waxal na ñëpp Seydi Mouhamadul Bachir suñu xarit moom it waxal ñëpp tabarakallahu yàlla na yàlla yàlla leen taxaw waaw ndax ndax loolu rek la am lu baax rek la ñu am waaw yiw kese la am waaw te loolu moom mooy suñu dund waaw loolooy suñu dund te loolu aussi la ñuy yóbbaale ëllëg motax dimbali ci dimbali ci sunu roh ko ku nek sedd ci donte tombu tombu lumière dom solal li ci dess yépp nak ñu bayyi ko yalla li ci dess yépp tabarakallah ñu bayyi ko yalla waye tabarakallah man koy wax sank kol bi bu ngeen gisé ñu tegoo ko hommage bi mom lañuy ñuy le peuple palestinien mom lañ leen di delloo motax ñu nu tegoo seen pour soutenir les nations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 में incha allah version wolof jërëjëf